ci de ci ndox mi bari na de. Mhm. parce que fi mu nekk nii. Uh-huh. ay xet a ngi ciy génn di ñu dugg. mais la mais mënuñu bàyyi place yi. Mhm. ndax fii lañ am fi la ñu mën a amee lu ñuy yóbbu kër ga. la parce que añ yi ñëw fii ñuy añ yooyu dugg ci ndox mi di ci naan di daanu ci ñam yi di ñu mat. Mhm. metti na. waaw feebar bu ne la mën a joxe. ah lu nekk la ñu mën a jox. micro yi am na xeet yoo xam ne bii yaa ngi ko fiy gis. te lépp baaxul ci doomu aadama. mais nag amuñu pexe yi. metti na nag. Mhm. waaye nag ah muñ rek di jàpp ci yàlla moo fi ak ndox mu taajee yàgg fi loolu lu ne mën na cee nekk. ah ndox mi lu nekk gi ci de. Mhm. parce que gis nga rab yi ci nekk nii di fortaatu. Mhm. même te am na benn benn nit boo xam ne bii amul xel. te ndox bu bari bee la dugg. mais heureusement boobu woo nañ sàppoor. te amul xel muy tanga di sangu di tangay sangu. gars yi yëpp daje fii ci kaw tali bi mais muy xuus di xuus di xuus ba egsi sàppoor xanteeg moom ba génne ko ndox mi hmm. yóbu ko hmm. te xam nga bu fekkonte ne bi kàmb gu mag yi suñ ginnaaw la hmm. kon day dee ndax kàmb gi dañ koo gas mais heureusement ca kàmb gu gële la duggee fële moom xóotul mais fii moom dafa xóot fii moom wax dëgg yàlla moom xam nga gis nga ko ni mel ni ko tegal sa ko sëkk ko mën nekk bari na ay yoo ay danger mu ngi xam nga bu mel ni ay jaan ay affaire ay yow rek benn jaan génn traverse ah di waaw ay démb tey rek démb rek benn affaire mu ngi génn fi xamul lu doon jàpp parce que fii nii xam nga. sunu gannaaw bi moo mujj def ay sacrifice def la tout pour sacrifice pour a taxaw sax xam nga. Mhm. loolu moom na trop mhm. métti na nag xam nga koy mën a nekk yooyu day gën di mat affaire yooyu noonu kéemaan la daal. Mhm. même xam nga rek ah, ñàkk pexe moo la fi bàyyi parce que amul leneen. mais fii moom vraiment moom ah. boo ko xoolee nii xam ne doy na waar ñoo suñu bagage yi nii lépp ci biti la nekk nii. xam nga métti na trop.